di nuyu képp ku fi teew di jël nuyu bi di ko teg si loxo Modou di ko teg si loxo Matar Diouf di ko teg si loxo Assoukane Sall di ko teg si loxo Mangolo Taha di ko teg si loxo aussi Ousmane Faye ak si loxo Daouda Mbaye di nuyu yéen ñëpp di nuyu aussi te di kontaan si teewaayam muy Mansour Dabo di ko sant ko waxee il y a trois semaines si la déclaré officiellement génn Yewwi Askan Wi ñoo dugg defar ànd ak ñun pour jàppale la coalition Benno Bokk Yaakaar maa ngi bëgg loolu ci daje sant. Niass bi nga xam ne tey su ma toogee Ousmane Faye si weeru koor gi mu ànd ak avec un groupe de plus de trente jeunes ñëw ma recevoir ñu toog waxtaan ñu xamal ma ni ma ñun kat Pastef lañ bokk waaye bis ni ko tey fas nañu ànd bokk ànd defar pour jàpp son excellence le président Macky Sall ma ne ko woon nag dinañ jàpp boo xam officiellement di ngeen déclarer seen adhésion si mouvement And Defar tey jii loolu du dox ba Abbas aussi am yéene bi ànd ko comme ni ko waxee suñu grand frère Mama Gaye xam baax ànd ak ñoom Khalifa ñoom Cheikh Tidiane ak ñoom Khalifa ñoom ñëpp fexe ba tey ñu mën recevoir ñoom Daouda ànd bokk jëf di leen sant ci seen engagement yi ngeen fësal tey pour fas yéene ñëw ànd ak ñun si le mouvement ànd defar pour le jàppale le président ñun nag suñu mouvement bi ñu tudd defar te yaakaar naa ni ànd defar ku la siiwoo bëgg na jàmm bëgg na lu baax waaye ñeneen ñii nag li ma gis mooy ànd yàq la ñuy woote te ànd nag buñ si woote maa ngi si wér réew mi nag ma fi gis léegi la kenn mënut a comprendre damay faral di wax ni booy dégg ñu naan Macky Sall dictateur dictateur mais dama gën a yéeme mooy dictateur yi Macky Sall yi opposition ndax ku si am nga sañ-sañ. far ak ki neex waaye pourquoi mënuñu nangul ñun ñii tamit lu ñu koy woowee mënuñu ko leen neen dictature tey kenn amatul sañ bu suñu sëriñ waxee ñu saaru ko wax ñu saaga la wax ñu dëggal la dëggul defe naa ni dañoo fekk Sénégal nii mu mel mu nekk dëggu jàmm nekk dëggu salaam de Senghor à Abdou Diouf de Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba tey Macky Sall del su réew mi defe naa ni fii politique bi toll léegi kenn ni ko xamee mooy débat d'idée la projet wone wala bilan waaye war woo projet war woo bilan projet bi ngay woote nit ñi rek mooy kaa leen yi kaa leen yàq kaa leen sànni te def naa jot na nit ñi yeewu ndax réew yi soxla fi dara lu jàmm soxla dara lu respect bu doon tey ku mën sa waroon du ma fa ñun ñëpp kenn du dund tey ñu di toog donc li nit ñi woote mooy jàmm lañ soxla si réew mi respect lañ soxla si réew mi Tiwaawan nag dafa nekk ville spéciale yàlla boole ñu fekk mag mu baax muy Maam Seydi Hadji Malick Sy donc tey ñu tëdd fii képp koo xam ne fii fi woote fitna def naa ni booy xalaat tuuti war nga bàyyi xel nit yàlla moo tëdd fii si dëkk bi képp kuy jóg pour yàq war nga bàyyi xel nit yàlla pur moo tëdd si dëkk donc nañu fexe sauvegarder suñu Tiwaawan ji protéger suñu Tiwaawan ji ba jàmm rek moo fi am ku fi jóg pour yàq. ñun tam ñu pour defar wan ko fi gën ko yàgg donc loolu laay ñëpp loolu laay woo bi réew mi nag toll na foo xam ne li fi mooy ñu jëm waxtaan ak jeunesse bi conscientiser la jeunesse ndax le président yàlla moo ko teg réew muy doxal xeex bi xeex yëpp lépp li ngay mooy waxi troisième mandat te def naan troisième mandat kenn waxagul wax ci troisième mandat ndax ndeyu mbir yi sax waxagul wax ci troisième mandat biñ fexe Abdoulaye amul droit droit fi lañ toog tàngal tàngal teru fu mu ñu fekk woote ji biñ woote yàlla def li muy def donc man tey li ma gis mooy ku nekk li nga gëm gëm ko bu vote jotee élection jotee ku nekk da nga vote ki nga wax ki nga àndal nga la yàlla boole ñu ànd ak comme ni ñuy wax mbir moo nekk mu jaral mu yàqu nañu jaral suñu fexe mu defoo ko ñun suñu président bi ñu li ñuy xeex te di ko bëgg mooy ñu fexe le président Macky Sall am jàmm fexe ba président Macky Sall li ñu bëgg si réew ñu ànd ko mu doxal ko yàlla meeru si ndaw loolu def na ñu ngi yaatu ñu si liggéey liggéey bu am te nee na def caravane mag def événement bu mag ndax élection locale yi ñu génn boo xoolee si ñi nga xam ne doon candidat man y avait si y avait Diack y aussi Wallu Diop si yàlla jox Tivaouane amoon na sept mille et quelques man ma ñëw en deuxième am six mille cinq cent voix Diack am cinq mille et quelques te boo boole ñu ñett suñuy voix boo ko cumulé daanaka jege na vingt mille électeurs élection législative bi génn bu ñu demee ba tey Yewwi Askan Wi gañe Tivaouane jiitoo ñu presque deux mille voix damay jàpp ni y'a problème suñu biir donc nañ ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar xoolal suñu bopp tey jii liggéey bi mooy lii am fexe nu ñuy massifier si opposition bi andi ku réer ñu jëli la àndina ñu ñuy nit ñi conscientiser nit ñi ba ñu xam ne président Macky Sall si li nga xam ne yéene woon na ko si ak li nga xam te ni ñu koy réalisé mais mbir mi nañ bàyyi élection locale bi suñu gannaaw tey fi jëm man soxlawu ma jëm jaay soxlawul kenn soxlawul président Macky Sall moo soxla boole suñu ay bëgg-bëgg fekkoon na fexe ba ñuy président am ndam tey xeex bi bu ñu ko bëggee xeex dañ bàyyi bu fii quatre ans élection locale di ñëw lu xeex ñu xeex ko waaye débauché na militant ànd defar yóbbu si jaayintol yóbbu si la lay rapporté perte maa lay andi bu dee yaakaar boo ko defee peut être dina la amal ndam ndax li nga am ba pare doon koy téye loo amul nga leen wuti ndax man sama militant militant yaagul militant jëm si yëpp jaañ jëm ñëpp Macky Sall lañ koy sotti donc pourquoi ñëw an defar naan xaaral ma xëcc Lamine wala ma xëcc kenn lan la liggéey bi mooy fexe ba opposition bi ni ñuy fexe ba jël sa opposition bi andi mais pas di jël si Benno Bokk Yaakaar yi te loolu c'est valable pour xam ne ñooy leader politique yi nekk ci Sénégal yëpp nañu teg këral yi fële guerre de positionnement yu teg ko fële xool li nga xamante ne moo ñuy jëriñ li nga xamante ne mooy jëmale coalition Benno Bokk Yaakaar kanam mooy ñu ànd bokk ndey bokk bay yéenante jàmm boole suñuy jeunesse suñuy femme suñu yëpp ñu doon benn di yëkkati ndoo tegandoo loolu mooy li nga xam moo ñu mën a jëriñ ëllëg en tout cas man maa ngi leen sant Ousmane di sant Daoud loxo di ngeen ma tàllal nangu naa te di ngeen xam ni am partenaire te di ngeen xam ne aussi am ngeen jëlër lii leen nag soo du question ni rang bi nii di occupé wala position bi nii di occupé leader leader soo ngi action bi nit ki mën loolu mooy mais du question bi ministre la wala DG wala maire loolu la leader mooy ki nga xam ne yaa ngi mën a ay action te yaakaar naa ni fii si dëkk bii fii Sénégal nit bu mu doon leader ndax action yi fi mën ministre def ko DG def ko maire def loolu loolu la yàlla donc day ni vous avez un leader vous avez un partenaire yaakaar ba bàyyi fi ngeen nekk ñu ànd ak ñun incha allah di soxla jamais danañ àndandoo mais dans xeexandoo taxawandoo fexe li nga xam moom lañ Sénégal muy jàmm li nga xam ne lañ bëggal Sénégal muy développement pour que nga xam moom la yéen Sénégal yàlla mun ko eggale tey suñuy woo jeunesse bi Sénégal musu gis ay télévision nga gis ay film wala boo fexe ba am fi TER fexe ba am fi tey BRT fexe ba am fi ay stade xeex ba ay bëree si ay infraction la yàlla am gàmm am problème fu ñu dugal suñuy gàmm président bi mu ñëwee li mu njëkk a def teg benn programme tuddee ko programme pour la modernisation des villes religieuses taxaw tamit teewoon def fi benn résidence bu am solo xam tey fu kan mën a jógee bu soo bàyyi dañ ñëwoon fii sax ñu dugal ko si résidence bi accueillir ko foofu loolu Macky Sall moom ko defal jumaa ji ñuy tabax mu yëkkati cinq milliards de francs waaye si jumaa ji donc loolu bu ñu di def sa kilifa mu def lu sagal lu jàppale ko démb xaw ma tey li xew ko ba ngir boo gisee ni mu fa defar defal catholique yi tey képp fi catholique boo egg foofu ñu ko seet il plus de milliards defaatal leen fi ngeen xam ne fa la ñuy defee seen pèlerinage nga dem tey nga dem si Omarien yi nga dem Médina Gounass dem fa def defe naa ni si sant ñaata hôpitaux la président Macky Sall def si sport ñaata stade la def si infrastructure boobu di gën a yéeme nag mooy la jeunesse tey maison de la jeunesse et bii ne kër Cheikh Awa

man de ki ma gëm te mën a ànd ak moom mooy si acte yi muy posé nga xam ne bu lakk amee mooy njëkk a ñëw fay lakk bu problème amee mooy njëkk ñu andi solution man de kooku laa mën ki nga xam ne tey andul projet andul programme li muy woote rek kaay leen xeex kaay leen reyante kaay leen di kaay fa naan loolu il faut président am yar président bu am vision président bu Sénégal président bu bëgg Sénégal nañu ànd bokk ndey bokk ba jàpp na président bu maa ngi sant ñëpp di gërëm di wax jigéen ñi nañ taxawaat góor ñi nañ taxaw jeunesse nañ taxaw lii ñu def tey nañ ko multiplier par mille fu nit nekk te bokk si opposition nañ ba jël ko andi parce que gars yi yee yeete wuñu li ma dégg ñu naan kenn de mais ñun dañuy créer coalition yee nit ñi yee Sénégal maanaam ñi yee ñi nga xam donc loolu laa amoon ma si doon. maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum